psychologie alors leneen loo xamante ni bëgg nañu ko def comme pàcc yi nga xamante ni laale nañ ko benn bu ci nekk jël nañu ak maladie cardiovasculaire yi jël nañu lu jëm ci wàllu néphrologie ak <coughs> insuffisants rénaux yi mhm. la ñu jëlee tam lu jëm wàllu pneumologie ak loolu mais tey dañu bëgg contexte bi jël ci Covid ak lu jëm ci wàllu cigarette maanaam pon tabac ñu bëggoon rek loolu rapprochement bi d'autant plus que ñi ngi wax ni ñi nga xamante ni dañ koy tox personne à risque lañu su fekkee tey Covid bi jàpp na leen waaw xam nga pon nañ koy toxee dafa bari façon nañ koy jëfandikoo dafa bari façon mën nga jëlam pon daal di def cim gënn daal di fab gënn ga sex mën nga jëlam pon def ko cib cigarette taal jafal xëcc mhm. mën nga ko def ci xobu pon ca boppam muy cigar mën nga ko def itam ci gënn goo xam ne gii dangay jël ndab la nga xam ni moom la ñuy jëlee ci poon di koy def muy loolu ñuy tudde chicha. Uh-huh. nga koy tox uh-huh. mën nga ko def itam liquide boo xam ni bii maanaam ndox. moo xam ni mii danga koy daal di def muy cigarette électronique uh-huh. dégg nga di ko tox mais boo ci jël poon la ay xeetu poon la waaye poon lañu waaw Covid bii fu muy jaare pour moi du ci nit ki nga xam ni kii moom moo feebar jóge ci tiflitam ñëw ca keneenu nit mm-hmm. waaye yow kooku bu fabee ab gën daal di seex daldi yàbbi même bu dee da ko fomp nii sax jox yow mi nga seex hmm? kooku du problème mm-hmm. man bu ma sañoon loolu ñu naan chicha tey tey na fi jóge chicha bi na fi jóge parce que fab sa gën sex même boo ko fompee mbaa nga def loola neex. Mhm. jox keneen mu sex indi nga jéeya. mais prof dañ ni garaawul de am na ñu koy tox ñu ni affaire bi daal euh, kiiwul. amul amul benn problème xam nga euh, ña koy jaay ñoo wax loola. ña koy jaay ñoo leen déey loola ña koy toox defe ni ñoom itam modd la defe ni tamit du dara loo xam ne nii euh, day indi ngaañ. la ca nekk cam póon moo ëpp la nekk ci paketu cigarette ci chicha bi ci chicha boobu boo xëccee mel na ni xëcc nga paquet cigarette benn xëcc boobu ngay xëcc benn xëcc boobu ngay tux gis nga tey ji benn séance su chicha mel na ni danga nga ay paket yu bare bare bare kon xam nga ñey wax xëy na xamuñu la ñuy wax mais nañ leen ci yee rek nañu ko ne yeer tee rek dégg nga kon nga yëkkati sam gën daal di fa dugal sam gémmiñ tox fekk yow yaa ngeeg corona ba daal yëkkati jox keneen <laughs> musiba mën su lool. Mhm. dégg nga ñaareel bi xam nga am na image bu ma la jox sànq. waaw buñ ñu ko mënee won waaw bu ñu mënoon a wan booba image bu ko defee ma daal di koy commenter tuuti gis ngeen lii. Mhm. mi ngi mel ni tappi bi nga xam ni moo nekk ci bakkan ba ca biir xëtër. Mhm. tappi boobu dafa mel ni dafa am bale. boo xam ni bii lépp lu fa dugg muy poussière mu di virus mu di bactérie mu di leneen dafa mel ni da koy daal di bale génnewaat ko. Uh-huh. nga daal di koy yàbbi daal di sëqët dégg nga. Uh-huh. daal mu dem waaye bu fekkente ne nit ki day tox bale boobu gis ngeen bantu bale yooyu nekk ci kaw kii. Uh-huh. dafay paralise dootul bale la ca diir. kon tey jii bu fekkente ne nit a ngi tox wala nit a ngi nekk ci ak koo xam ne kii day tox yaa ngi dégg bale boobu nga xam ne day dàq virus yi dootul marché ci donc ku mu egsi ci yow rek <laughs> virus ba daf fay daal di des sax fa law fa daal di yàq. Mm-hmm. kon xam nga toxkat. du ne moom moo ko gën a yelloo parce que ku daje coronavirus mu dugg ci sa yaram. Mhm. dégg mhm. waaye nag kii day dugg ci biir yaramam mu koy bale muy génn keneen ka mu dugg ci biir xëtëram munu koo bale munu koo génne dafay dal di dees bu fa desee law fa bu fa lawee dal di commencé indi yàq nga mu doon yàq. mais professeur kuy kuy def lii tuxkat bi def lii nii. léegi bu gisee lii ne bàyyi na tux est-ce que bale yi dana doxaat. kay dafa feebar. bu leen ko jàppee neneen dafa feebar dafa jàpp loo xam ne nii dafa dugal dafa dugal baar.